jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu leen ziar waaye na jël nuyoo bi ak ziar bi ah, di ko jiital ci sëriñ Mountakha Mbacké xalif ah, général kullu murid di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbokk yi bés ba ñëpp doon xaar yegg si na di tey jëlee àllarba yemoog fukki fan ak benn ci weeru août 2021 ah, di bés bi nga xam ne moom la sëriñ Mountakha Mbacké xalif général kullu murid daal di woote ngir ñu daal di dundal li nga xam ne mooy xasida yi fépp waaye man di nekk ci àdduna waaye rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba loolee tax fii ci diwaan bu Daaru Minaan mbooloo mu takku nañu fi nemmeeku bàyyi ko fu ne ngi daal ñëw fii daal dund li nga xam ne mooy xaside yi moo tax waaye man di nekk yaa ngi mooy ambiance bi ndax ambiance bu doy waar la ñu fi nemmeeku mbooloo mu fu waaye man di nekk yaa ngi dégg li nga xam ne mooy xaside yi moo xam nga nekk ci biir bâche yi moo xam nga nekk ci bitt moo xam ngay dox ak loo man di def yaa ngi dégg li nga xam ne mooy xaside yi moo tax xawma fan waaye ambiance bi machallah allah nak ci bir bâche yi mbooloo mu takku lañ fi nemeeku ñoom it ñoom moo xam ñuy kurel mo xam dañuy durus ak lu ak lu man di def rek ah, ñu ngi leen di ko ci bir bâche bi mu nekk mbolom takku lool mo xam muy goor jigen mak ak ndaw bay wuñ kenn mu nekk bëss bo xam bëss bu mësul am ci aduna ah, nekk bés boo c'est une journée exceptionnelle une journée inoubliable une journée qui sera restée dans l'histoire de Touba dans l'histoire du Sénégal mais aussi dans l'histoire de l'Afrique également dans l'histoire du monde entier ah, kon nak mbokk yi dugg ci bir bâche bi ngir daal leen wan li nga xam ne mooy ambiance bi nga xam ne moo nekk ci biir bâche bi nekk ci bitti lépp loo xam ne yitte wa ngeen ko ñu war leen ko wan incha allahu rabbi dañ leen ko wan ci euh, suñu chaîne bi waaye xam naa sax du ñàkk ma am euh, benn jëwriñ boo xam ne mi ngi fii ci ahlul minan euh, mu wax ma ni nga xam ne noonu la liggéey bi di demee fii incha allahu rabbi عليه maa ngi tudd Djili njaay maa ngi bokk ci euh, coordinateur yi nga xam ne ñooy taxaw site bi site principal bi di site Daaru Minam nga xam ne dafa composé waat moom it ñetti ñetti yu bokkul mu site 1 di bâche bi ak site 2 di mbaar mbaar mbaar mi nga xam ne moo den rek barabu sëñ Basiru ak site 3 di mbaaru Maam Jaara bi gannaaw yàlla mm, bâche yi moom wax dëgg yàlla niñ ko niñ ko organisé nenn kese la mooy dañoo bëgg fexe ba soxna yi nga xam ne dañuy jàng moom ñu dugal leen ci biir kër señ bi ngir ñu baña a ñi ngay gis ñuy rombante daanaka ay nit ñuy dem la xamna né di wër seeni mbokk wala di xol fan lañ mëna tok ba mëna jëfé ndigal ni waaye lu ci munti xew dal organisation bi fi am moy goor ñi dañ leen di ber ak jigen ñi bo ngeen duggé fi rek dañ leen gis ne jigen ñi dañ leen ber di leen jox ay téré ñuy juk ñuy jàng ni goor ñi wax dëgg yalla kon loolu bokku na ci li nga xamné dal euh marqué na bari ci liggéey bi té dara war la ko lu sàmmonteeg ni nga xamné non la ko suñu borom bëggé site 1 bépp kuréelkat boo xam ne da ngaa bokk sa programme dafa nekk ci site a muy bâche bu mag bi dañ lay dugal ci biir nga tiim kuréel gi nga xam ne ñoom ñëpp secteur lañ leen woo ndax li ñu doon bañ mooy koo xam ni buñ la wooyee secteur doo ñëw soo ñëwee di calculer ay su yàggee maanaam njàngum durus mi da nga koy weesu fii nag comme durus la ak yëkkati moom moo waral ñu convoqué kuréel yëpp ñu teel a ñëw ba nga xamante ne li li sëriñ bi digle dinañ ko def ca nam waree sécurité moom mën nañu am na fi ndax képp koo xam ne jël nga sa dispositif sécuritaire lu ci mel ne ay ay benn port nga ko wutal te port bu nekk ci wàllu santé def nañ fa benn maanaam dispositif de lavage boo xam ne dana dimbale nit ñi ñëw ñu mën a raxasu takk seen i masque ndax mbaar mi rek ku takkul masque daanaka doo fa dugg te buñ gisee ne takkoo masque leen la fekk fi nga toog ñu jox la masque ngir ndigal moom jëfe rek te sëriñ bi si boppam ñëpp foo ko gis ñaare mu ngi tegoo masque woowu nga xam ne maanaam mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy jëfe mu ngi koy mu ngi koy santaane ngir tawat gi nga xam ne mu ngi law ci àdduna bi yëpp yàlla ci yàlla musal te mu jaar fi teggee ko ba faw ci daraje sëñ Basiw barke bu waa këram barke sëñ Abdou Kine xaside yi nga xam ne dañ ko yittewoo ci biir bas bi jàpp naa ne da ngeen ci jàpp ba xam ne distribution bi dana mën a nekk waaw xaside yi nga xamante ne nii ñu ngi ci biir bas bi mu nga ne xaside la yoo xam ne suñ mbokk taalibe yi di waa Hizbut Tarqiyyah ah, am na lu leen ci sëriñ bi junjoon loolu rek lañ respecté ndax ñu dañuy liggéey ñoom en phase nekkuñ di def suñu yëfi bopp waaye du tee comme daara ji organisé lañ wax dëgg yàlla dañuy mën a jàppalante ci yu bari teewut ñoom lépp loo xam ne jëlee nañ ko ci ndigalal sëñ bi bu ñëwee nañ ko nañ ko digalee rek lañ koy defee ndax comme ndigal lu mag li moom sëñ Muntaxa la jóge jaar ci jaar ci sëñ dem ci ñoom ñoom ñu di ko organisé lu ñu tënku tënku it dañuy leen di fekk si ci ni niñ ko tënkee te wax dëgg yàlla nañ ko tënkee tënkin wu rafet la ñun nag ci suñu côté wut na ci ay xasida yu doy mbaar moo dem daanaka ay sa xasida yi ci mel ay nuur daare ne jaali ba toog yi euh, xisnul abraar ak nu eh, xatimatul xidma ak xasida durus yi ci ëpp yi ci gën a siiw benn bu ci nekk daanaka ay téeméeri téeméer lañ ci wecciku fi mu toll ni baar baas boo dugg da nga fa fekk téere yooyu ak ay diwaan yu bëree bëri bëri daanaka mat ëpp na 25 diwaan ñu ngi ko tasaare ci biir eh, ñetti site yooyu ba fii may wax ak yow mbokk taalibe yaa ngi koy yëkkati ci ndimbalal yàlla koo xamante ne nii maanaam eh, maanaam da ngay da ngay taxaw lu yàgg moo xam soxna su taxaw lu yàgg di filmer yooyu dañ lay ñaan njekk nga dugg ci biir fi soxna yi nekk ngir nga mën a def liggéey bi nga xam ne mooy fi indi bu dee nag nit kuy romb moom deen maslaa ak moom ba mu bëgg nañ daal mu fees dell ci ndigal bi ko bi déglee muy durus ak jàng xasida ndax fi moom boo nga xoolee amul dal li fi nekk mooy ay bâche yoo xam ne dañuy ut ay ay chef de secteur ay ay chef de de site yoo xamante ne nii kenn ku ci nekk xam nga sa tâche laataa nga fi ñëw mooy ñaata xasida ngay jàng xasida yi boo ko jàngee da nga koy bind repérer ko bu ko defee ñu ñu mën a xam lim bi ba bu ëllëgee ñu mën koo jëbbal sëriñ bi eh, jërë ngeen jëf yi ñoo ko déggandoo dégg ngeen ni nga xamee ni noonu la koy jëriñ ji waxee mu nekk liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la waaye gis ngeen ambiance bi nga xam ne mu am fii ci dëkk bu sell bi di Touba waaye rawatina ci dëkk bi eh, di Touba Darou Minane comme niñ leen ko wanee ambiance bu doy war la ñu fi nemmeeku xam naa liggéey bi day wëy incha allahu rabbi eh, li gën a neex mi ngi ci kanam